waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi siyaare mbokki jullit yi yëpp bëggoon a indi nag benn tontu boo xam ne dama koy jëmale ci ki ñuy wooyee Xaadim Buso mu yëkkati ay kàddu ci fee yi nga xam ne amoon na Tuuba wax ci ay wax yoo xamante si nii bari na ci loo xamante si nii dëppoowut ak na mu demee dëgg-dëgg wala boog nam ko waxee daa wax rek la nga xam ne mooy fee yi te indiwut lan mooy cause bi damay ñëw nag ci ay waxam d'abord ah, yenn ci ay waxam su ma paree dinaa ñëw ci euh, kilifa yi doxin wi euh, dinaa ñëw tamit ci li waral mbir mi maanaam li tax mbir mi am moom nag dafa qualifié mbir yi rek wax ne euh, xale yi nga xamante si ni ñoom ñoo amal yàq googu am ci Touba mooy ñu ëpp ci ñoom Touba la ñu dëkk loolu bëggoon naa mu indi ci ay leeral pour wane ne xale yi yàq-yàq googu Touba la ñu dëkk bëggoon naa mu indi ci ay leeral beneen bi mooy dafa wax ne am na ñu nekk biir Touba ñoo xamante si ni dañuy yëkkati ay kàddu di saaga kilifa yi ba tudd sax ba ne ñenn ñi sax ay commerçant lañ loolu tamit bu ko waxee dafa mel ni tuumaal na ñu nekk ca wàll googu te nit boo demee bay wax te la ngay wax munoo cee am firnde wala munoo tudd ña koy def la gën mooy bañ koo wax ndax soo ko waxee rek tuumaal nga ñooñu te wax ji boo ko digloo ba ci biir day mel ni diabolisation la maanaam jóg ngir diaboliser Ousmane Sonko ak yenn ci murid yi parce que am na murid yoo xam ne kenn mënu leen a diaboliser parce que ils sont très conscients de ce qui se passe dans dans ce pays et dans le monde entier kon beneen bi nee nga Ousmane Sonko violence bi yëpp moom la ndax moom moo ko planifié bind ci page Facebook am wax ne ala kulli haal mbir mi dina am nangam ak nangam da ne dana fa jugee ñëw jumaay Tuubaa bu fa jugee dana dem ci xalifa général des Baye Fall kon violence bi moom la waaye yow sëñ Xaadim Euh, kon yow xanaa li ñuy def Ousmane Sonko ci réew mi da nga koo gisut wala danga cee gëmm say bët wala moom jëmmam moo la neexut danaa la wax benn mbir Sëñ Xaadim Ousmane Sonko jamono fii mu toll muy murit muy tijaan muy chrétien muy leneen ak leneen foo dem am na fa ay nit envergure bii mu am envergure nationale et internationale bii mu am suñu borom moo ko ko jot leen bu la neexee am na ko bu la naqaree am na ko ndax loolu mayu yàlla la yàlla may na ko pare gis nga nag ab jaam dangay nangu dogal te cër boobu nga xam ne suñ borom daf ko koo jox mboolem kuy kilifa war ngaa yëkkati cër boobu delloo ko ko te xam ne cër boobu moom joxu ko boppam kon suñ borom moo ko jox nga jël nga jël cër boobu delloo ko ko ngir jëmee suñ borom boobu subhaanahu wa taala suñ xaadim euh, nee nga euh, yenn boo waxee jamono ji ñu toll xale yi dañ lay saaga yenn xale ñoo lay saaga danga naan boo waxee dañ lay tontu boo waxee loo xamante si ni am nañ ci tontu dañuy indi tontu tontu la la xewoon bu njëkk nag nga xam ne da ngay wax ba pare amuñu fuñ la tontoo même bu ñu àndut ak yow sax amuñu fuñ la tontoo loolu de jamono daf ko weesu jamono toll na foo xam ne nit ku mën a wax am nga mën ngaa bu waxee ba pare yow mën ngaa toog fi nga toog wax tontu ko moom mu jot ca wax ja kon pour man buñ demee ba kilifa yi buñ waxee xale yi dootuñ leen dégg kilifa yi ñoo am problème kon askan wi amuñu problème parce que askanu Sénégal ñu baax lañ askanu Sénégal ñu jullit lañ askanu Sénégal ñu bëgg seen réew lañ ndawi Sénégal yi wallaahi gisuma ndaw bu leen gën a jàmbaare gisuma ndaw bu leen gën a bëgg réew mi amul kon xale yi dañ leen a war a jàppale xale yi dañ leen a war a dimbali xale yi dañ leen a war a taxaw te kii nga xam ne xale yi dañu ko topp mooy Ousmane ko daf leen a tegal programme boo xam ne ñoom dañ cee gis seen bopp am yaakaar ci ne kii kat bu yoree réew mi kat xëy na ñoom seen bëgg-bëgg mën naa saafarawu ci ci moom mu wax leen loo xamante si ni ñoom kat am nañu yaakaar ne kii kat ëllëg bu ñëwee seen tawat ak seeni euh, jàmbat moom dana ci am taxawaay bu mat sëkk bu ñu demee ba xale yooyu am problème di jël gaal gi di dem tax xam nañ ne buñ jëlee gaal giy dem ak faatu mën na leen cee fekk ñu jaay seen bakkan ngir loolu te loolu lépp li ko waral ngir bëgg am teraangay àdduna teral sen bop teral sen jëm teral sen wajur mom mo moo waral kon xale Senegal, ndawi senegal ñu am jom lañ ku len waxalut woro leen xass ku len jappale wut woro ngagn parce que ay ndaw yu am personnalité lañ ay ndaw yu am jom lañ yu bëgg seen réew lañ kon nañ leen taxaw gis nga nak buñu démé ba borom xam-xam yi wacc fi askan wi and ak bour buñu togué ci cérémonie yi askan wi di loru mo waral révolte bi am tay moo waral tey jii ñu bëri taxaw ne xale yi dañoo ñàkkuk taalibe billahi xale yi ñàkkuñu taalibe barke sëñ Tuubaa xale yi ñàkkuñu taalibe ñu am taalibe lañ dañoo am lu leen metti ci seen adduna te amuñu ku leen ko jooyal te ñoom ñooñu war leen koo jooyal muy kilifa yi war a taxaw bu président toogee ñu ne ko président yow mii de yaa jiite askan wi nanga ragal yàlla ci ñi nga jiite na nga fexe ba ku feebar na nga faju na nga fexe ba nga xamante ni ku xiif na nga lekk na nga fexe ba alal ji nga xamante si ni suñ borom dénk na la ko na ci ragal yàlla sa borom yaag ñi nga àndal man de dégguma genn kilifa goo xamante si ni président Macky Sall dina toog nga yëkkati kàddu yu mel ni jëmee ko ci moom man de dégguma ko gisuma ko te gis nga wax nag balaa moo neex nga taxaw wax ko publiquement ñëpp di dégg nga xam ne lu am ëllëg dañ naan diw de waxoon na moom waaye wax nañ ci suuf déedéet kilifa buy wax day wax ñëpp dégg ñu xam ne ëllëg si biir lu mën a xew ñu xam ne kilifa sàngam de waxoon na ndax maam Abdul Aziz jamonoom day lu mosoon a xew danaan toog woo rajo bi rajo bi ñëw mu wax li mu bëgg a wax lépp ñëpp yi dégg ba tey jii nii buñ demee ba jamono bu buñ amee problème di indiwaat ay kasitam kon société bi am na problème société bi société bi paan na kilifa société bi ci ñëmam moo paan kilifa goo xam ne day jooyal askanam kilifa goo xam ne day taxaw askanam Euh, Sëñ Xaadim boo demee bay yëkkati kàddu yooyu di ko wax jàpp ne violence bi Ousmane Sonko moo ko waral juum nga Sëñ Xaadim xanaa gisoo Ousmane Sonko bu génnee sax di doxantu ñi jël ay grenade seen sànni ko ci otoom xanaa gisoo ndaw ñi nga xam ne dañ leen di topp ba ci seen ay biir kër di leen jàpp ndax dañoo ànd ak Sonko xanaa gisoo ndaw ñi nga xamante si nii dañuy bëgg liggéey buñ xamee ne Sonko lañ àndal duñ leen jël xanaa gisoo ñi nga xamante si nii Euh, buñ nekkee seen bérébu liggéeykaay ñu ne Ousmane Sonko la ñu àndal ñu dàq leen kon Ousmane Sonko ndax dadul sénégalais ma ne Sëñ Xaadim ndax xanaa gisoo loolu injustice boobu nga xam ne ñi ngi ko koy teg ndax xanaa gisoo ko wala dañ cee gëmm say bat wala dañ cee bugg ta wala danga ko bañ ma ne xanaa gisoo moom su bëggee dox activité politique am ñu ne ko doo ko fi doxee boole koo ki takki der ñuy jël ay garanaat la karma seen di ko ko sànni ba bëccëg moo ne pendant ce temps ci jamono boobu day am na ñoo xamante si nii ñoo ngay dox seeni activité politique te kenn terewu leen ndax lan dañoo ànd ak nguur xanaa gisoo tey jii jamono bii ñu toll ñi nga xamante si ni ñoo ànd ak nguur lu leen neex def te dara du leen ca fekk ku àndut ak nguur wala nga ànd ak Ousmane Sonko boo waxee sax wala nga reetaan sax ci Facebook ñu jàpp la tëj ci kaso bi mën a siñ xaarim loolu bi muy xew ndax fekku la fi qulil xaqu walaw kaana murran booy wax na nga wax dëgg rek donte ne dafa mitti donte ne dafa wex waxal rek te yàlla tax jamono bii ñu toll nag wax yàlla tax mooy li gën a jafe sëñ xaadim préfet bii nga xam ne mooy préfet bu Mbàkke lii nga xam ne def na ko mbooleem ñi nga xamante si ni seen xel ak seen xam-xam màcc na jëm ci droit wax nañ ne préfet bi lim def du yoon waa lan moo tax waxoo loolu lan moo tax waxoo ne préfet bi lim def du yoon lan moo tax waxoo ne Ousmane ko dañ ko war a bàyyi mu dox ay mitinam mu dox ay activité politique lan mo tax waxoko kon man pour man amna nafiq bo xamanteni mi ngi ci ñun ta dañ koy wax nak amna nafiq bo xamne mi ngi ci ñun nit boy wax waxal ta yalla tax nga wax mbir mi mom liñ ko tek ba tax li am te du yam fi ndax xalé yi ma gis ni ci mbedd mi wallahi paré nañ pour joxe sen bakkan te lolu liko waral lépp mooy ñàkk gi ñu ci sen avenir ëlëk ñàkk gi ñu ñàkk yaakaar ci ñi nga xam ne ñoo leen jiite sëñ xaadim suñu milliards yii ñuy sàcc guddi ak bëccëg te mu leer nañ ay cour des comptes ay of nag OFNAC épinglé ay nit mu leer nañ ñëpp xam ne ñii dañoo sàcc sëñ xaadim ndax loolu mënoo see wax hakay am nga kàddu goo ci mën a waxe te war nga cee mën a wax boo demee ba mën a yëkkati sa kàddu wax lii xew biir Touba war ngaa mën a yëkkati sa wax li nga xamante si nii mooy injustice bi nga xamante si ni ñi jiite réew mi ñi ngi dëkk di ko teg ci askan wi te yéen ñëpp ngeen ciy teg ay seeni i gët te ngeen wax ne ay borom xam-xam ngeen da ngeen a taxaw taxawaayu rasulullah alayhi salaatu wasalaam yonente bi de du xewutoon noonu ña ko woon de du xewul woon noonu dañoo taxawoon ci seen wetu askan dañ doon xeexal seen askan dañ doon waxal seen askan imaam Alioune Badara Ndaw moo ci mujj imaam Ndaw de daawul wax ba kenn yëkkati kàddoom nag li nga wax du noonu imaam Ndaw de daawul wax ba kenn saako kon nag bu ñu demee ñun bu suñuy kilifa bu ñuy wax dañuy ragal a wax ndax lañ bañ askan wu leen saaga ndax lañ bañ askan wu leen ton mais ñoom kon nañ xoolaat seen taxawaay askan wi amuñu problème ñi leen jiite ñoo am problème muy spirituel muy temporel ku lii rek waxoo la nga xamante si ni mooy dëgg muy spirituel muy temporel askan wi ci jëmmam lañ war a taxawu parce que réew mi askan wi moo ko moom mais munuñu fu ñu dajee rek. taggante tàppante gërëmante askan wi di loolu boo feebaree doo faju bu yàggul bii xale bii dëkk Kër Masaar te ñu euh, ko gis nga ni mu faatoo police yi yi yi ko fetaloon anañu an nañu tey amul enquête amul dara kenn waxu ci xale bi bu laataa moo faatu hôpital oo hôpital yóbbu nañ ko fa benn hôpital nanguwu koo jël mais injustice bu mel noonu am ci réew mi ngeen war a taxawal askan wi waxal askan wi waxu leen ko ngeen di wax ci ay détails ngeen di wax pour diaboliser nit ki ngeen di wax pour contre nit ki waxal leen askan wi ngir yàlla askan wi sonn nañ jooyal leen askan wi ngir yàlla taxawu leen askan wi ngir yàlla askan wi sonn nañ